diine dootu ko fàtte alxuraan dootu ko fàtte ci taxawaayam bu am solo bu mu am euh, ñu am koo xam ne nag li alxuraan naan wa shahida shahidun min ahliha dafa bokk ci ay production am jàngee ci daaraam jàngale fa bokk ci ñi mu defar tey mokkoloo ay nit ñu bari alxuraanu karim muy sëriñ Mbàkke suran di borom xam-xam euh, di nit ku baax koo xam ne it yëngatuum yëpp ci alxuraan la sëriñ Mbàkke yaakaar naa bu ñëwee ba ci fukki fan ak ñeent ci dul qaada di war a waxtaanee sëriñ Saaliw ñëw ci ku mel ni yow ñëw nañ ci koo xam ne ku ku ku ku xamoon la waaye ku newoon ci keppaaram la. bis bi tey ban yëg-yëg ci am Serigne Mbacké Sourang ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. waaleykum salaam wa xam naa Cheikh Omar li nga wax euh, lu lu am solo la fukki fan ak ñeent ci weeru sul qiyada di bis boo xam ne bis la si bis yi jàmbaar ju màgg feeñoon ci mel ni bañ ci feeñee su mel ni Serigne Mouhamadou Diop Dagana ñaanoon yàlla def ko muy ab jant boo xam ne dafay des ñaan nga moom dafa mel ni ba mu ko ñaanee rek la ko borom bi nangu waaye ku si mel ni Serigne Saliou ñu am lu bare bare lu ñu war a mën a jàng si moom ndax mbaax ci moom la yem kon wax ne si lépp alxuraan la Serigne Touba di si waajur nga def li ak nit war a def mooy jàmm yàlla gu rafet gu mat sëkk gu kenn dul lam-lamee fenn waaye nga jógaat nag ginnaaw bi nga amee lépp nga jógaat nag gis ni am na loo xam da ko war a liggéey mu nekk lu lu lu universel nga tàmbuli ko si ndaw met jafe nga ànd ko ak ñoom ànd ko ak ñoom ànd ko ak ñoom ànd ko ak ñoom ba mu ne fàng ba daj àddina bi ku mel noonu jamono boo xamee ni eh, bisam ñëw na warees na ko waxtaane jël si moom ay bind mm-hmm. bind biñ mën a jël si moom nag te tënk ko mm-hmm. mooy moom li doonoon yitteem mooy tabax doomu aadama mm-hmm. hadafam dëgg-dëgg mooy tarbiya te fi mu doon amul kenn koo xam mën ngaa wax ci tarbiya te doo gëstu mbirum Serigne Sall ndax moom moo ko doon de ci waajuram ginnaaw bi moo ko doon de ci waajuram waaye jëmmal ko ba ñëpp ba ñëpp teg ci bët te dafa am ay réew yu bare bare mën naa si jox benn misaal lu mel ni Chine dañuy wax ni dañoo liggéeyoon ay at yu bare bare defar benn mur pour noon bi nga xam day dugg ci seen réew bu ñëwee du mën a agsi waaye ñu gis ni biir téeméeri at yi noon bi dugg ci seen réew ay ay ay yoon yu bari def fa la bëgg génnaat te yëguñu ko ndeke bin gëstoo ñu ni ndeke ci gardien bi lay jaar am lu mu ko jox dugg ci biir ñu ne ah ndeke kon bala ngaa tabax ab dëkk da war a tabax nit. <laughs> léegi bu ñu tabaxoon gardien bi bu noonu ba ñëwee du fa jaar ginnaaw ba ñu doo ko tabax miir kon Serigne Saliou euh, dëgg dëgg liggéeyam. mooy defaroon nit ñi ndax la mu wax ne daa am lu mu gis euh, nit ñi defee ne daa bokk ci diine te bokkul ci diine maam dindi loolu la bëggoon mhm. daan ne gone de boo nee ko téenal mu téen nga ne ko liggéey seen lan la mhm. daan la asamaan la fekk ne li muy seen daa taq ci asamaan waaye du mhm. du asamaan si la waxee ne kon dafa am lu nekk ci diine ji te bokku ci te salaaw bu ma fi nekkee dana deñ liggéey boobu la doon la doon la doon liggéey ci waaye nag ci ay ci ay ci ay anam yu bare bare mm-hmm. boo demee si wàllu liggéey da gis ni jëmmal na ko loolu kenn du wax liggéey bi ni mu toll boo ñëwee si wàllu alquran bu la neexee xadis wala xarit maanaam fu lu baax nekk lu mel ni li li li imam Junayd di wax bi ñu ko laajee lan mooy aarif billah mm-hmm. dane aarif billahi daal lawnul ma lawnu yi ndox mu ndox ndab lu mu nekk rek lu lu lu maanaam nu ndab la mel rek noonu la ndox mi mel. innal inaa mhm. bi maa fiihi yandaw bi nekk loolu mooy la mu ne nitu yàlla mooy koo xam ne du noppalu benn yoon. Mhm. law nu maa law nu inaa yi ñu ne ko loolu noo koy tekkee mu ne mooy bu julli jotee boo ñëwee fekk ko mu daq laa julli mu sa nelaw guddi ku jógee sa jàkk ja ma nga ca zikkar ma nga ca kurusi ba bu jógee ci bi ma ngay ma ngay lijjanti. jafe-jafe yu am si daara toxal kii génne fële bu jógee si loolu mu ngi seet koo xam daa nekk si jafe-jafe mu fexe nu mu ko xettalee bu jógee si loolu mi ngi teral gan noonu lay nekk 24 heures si 24 kooku kon boo koy jàngat war ngaa mën a xamee ne ndekke doomu aadama ci ak dundam si kaw suuf boppam rek waru ko yitteel mhm. dafa war a jëf lu rëy bàyyi ko fi mhm. maadaama ñu di ko ñu di ko gis ak ñu di ko gis loolu di fi nekk mhm. te loolu wax dëgg yàlla am na ci ndam mi maanaam cent pour cent mi abil mi ay ci wàll boo xool muy aw yiw boo ñëw fekk ko moom kaa inun bàyyi nun kaa inun bàyyi maanaam kaa in dafay nekk ak nit ñi nii di def li ko war waaye boo làmbee biir ba dafa branché wu ci yàlla du déconnecté benn yoon kooku nag boo koy jàngat ak dundam ci ak gàttan ndax yi ñuy wax ci ñoom bari na lu mel ni seen ay lu mel ni seen ay mooji sa wala seen ay seen ay jëf loolu li ñu ci wax dafa bari bari goo xam ne te li sëñ Cheikh Saliou wax itam lu mat a bàyyi xel la daa wax ne sëriñ bi dee leen waxtaan ci moom lu ñu koy mën a royee ngir mën a dindi jafe-jafe yi fi nekk waaye yi ñu koy mën a waaye di waxtaanee yi ñuy barkeelu baax na gaaw waaye warul nekk nag li nga xam moo ñu tax a jóg te karaama moom dañ ci doy loolu li sëñ Tuubaa wax ne karaamatul wàll yi an laa yaxsiya bi zahirin wa baatinin in xusiya waaye nga gis ne daal bu ñu ko jàngate noonu ci ak jàngat bu gàtt nit loo koo xam ni léppam ak leer la waaye jëf na nag jëf joo xam ne moom ba addunay tukki du far bàyyi na fi ñoo xam ne si itam maadaama addunaa ngi dox itam message boobu day jàll kon yàlla nañu ko yàlla fayal. amiin yaa rabbal aalamiin. na yàlla baril ay kemam. amiin yaa rabbi. njaboot gi mu fi bàyyi itam te Serigne Cheikh Saliou nekk seen kanam. yàlla na ko fi yàlla yàggal. moom tam muy koo xam ne jàmbaar la joo xam ne. ab liggéeyam fës na lool. loolu ñu wax si moom moom la ñu wax si mboolem ak njabootam. waaye itam noonu la ñuy ñaanale itam mbooleem taalibe yi fu ñu mën a nekk. Mhm. di ñaan daal jullit yi na Sénégal ñu xam ni am nañ ñu ñu war a roy pour defar suñu àddina waaye am nañ ñu mën a roy itam pour mën suñu àllaaxira mën a jëkk. Mhm. lool la noonu nañ ko si sànni ci ay kàddu yu gàtt. asalaamaaleykum wa rahmatulah. ngeen jot suñu vidéo ngeen mën a jot mën a xam